asalaamaaleykum euh, mbokk yi euh, ginnaaw gën leen nuyoo jaajëfal leen bu baax a baax ñoo ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne yéen a safoo euh, télé bi nga xam ne moo di Derby TV waaye rawatina OTV nga xam ne ñoo ànd ànd gu rafet boobu ak léegi. di def liggéey gu am solo tey nag mu doon 18 safar doon bis bi nga xam ne moom la ñuy sante yaakaaru jaam ñi ki nga xam ne moo di Seexul Xadim ne woon bis bi bu jotetee la ko tàmbalee sa ginaar ba ci gëléem dañ ko ko sante gis nag nit yi di jóge fépp di ñëw waaye tey ñoo ngi fi nga xam ne moo di Daaru Rahman Daaru Rahman nag buñ ko waxee wax Sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi wax sëñ Ceex uh, waaye nag dëgg-dëgg tey kër gi ñu nekk mooy ki nga xam ne mooy Sëriñ Xalil naan ko le prince des deux daaru tey moom lañu ñu war a séqante moom waxtaan naam démb si 17 safar gis nañ ko mu def liggéey bu am solo. liñ ñaan 18 safar tey war nañ ko waxtaaneek ak moom Mbacke ginnaaw ga ngeen yoo jaajëfal la bu baax a baax bàyyi la ak mbokki Derby TV ak mbokki OTV nga nuyanteeg ñoom ñu tàmbalee waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi salallaahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér di ñaanal Cheikh Mouhamadul Habib mi nga xam ne mooy xalifa bi Sëriñ Abdoulahi borom dër waaye di ñaanal sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy xalifa bi Serigne Cheikh Daaru Rahman sunu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér di nuyu bokk yëpp di nuyu mboolem juddit ñëpp. suñ daaw da ñoo ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn jërëjëf jërëjëf dañ leen di jaajëfal baax a baax jëf kaddu yooyu nga xam ne moom la yëkkatee nuyu ñëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy ay kilifam fi nga xam ne moo di Daaru Rahman na ma leen ko waxee nag Serigne Khalil Mbacke ku ko wax dëgg-dëgg mën ngaa wax ne safar buñ ko waxee nag ñu seetlu ne bu di set safar jotee day togg ay benday doy yóbbu ko si sancaan yi naam tey bëgg nañ waxtaanee loolu fan la jógee lan moo ko waral lan moo tax booba léegi bi mu ko tàmbalee ñu gis si yokkute mbokki taalibe leen euh, moom euh, ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi si Touba wala yi nag nekk dëkk yi nga xam ne si ginnaaw Touba la ne muy seqanteeg ñoom ba maanaam teraanga yooyu Mbacke lan moo waral tey euh, bu di seet safar jotee wala buñ ne suba la màggal gi comme ni nga ko defee woon démb ñu jës la ngay togg ay berne di ko yóbbu si sancaan yi ok sëñ Daouda loolu moom boo ma ci laajee danaa ci sawar lool ndax day loo xam ne ndigalu sëñ Cheikh Daarou Rahman mi nga xam ne moo fi wutu woon Cheikh Abdoulahi boroom dër bi di ñaan suñu borom yokk ay leeram moo ma woowoon bis wax ma ne ma naa fàggoon ay bernde gannaaw bi ma ko fàggoo ba indi ko ci moom moo wax ma ne ma naa ko yóbbu ci sañc yi euh, bu ñu waxee nag Touba day dëkk boo xam ne ñu ko waa Touba fàggoo euh, dëkk boo xam ne dëkk ab yërmaande la dëkk ab xéwal la boo xam ne woo woote sëriñ bi dafa landi ba kenn ku ci nekk rek danga bàyyi fa nga nekk bàyyi la nga nekk ñëw wuyu sëriñ bi ñooñu nag buñ ñëwee ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na ci dëkk bi lañu nekk seeni taxawaay ak seeni mbir ñun la war kon mel na sëriñ bi loolu la xamoon ba waxoon ma ne ma naa fàggu ay bernde ci di set safar ji ngir yut ko ci ñi nga xam ne xëy na buñ ko fa yóbboo dana doon yitte ci ñoom dana doon seen barkeelu ci màggal gi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Bamba Xaadimul Moustapha woote gannaaw bi ñuy sëriñ bi joxee ndigal nag euh, ñu jëfe ko Euh, at ma ci toppit euh, mu waxaat ni ko nañu nañ defoon nañ ko nañ ko wéyale loolu it ñu di ko wéyal ci nekkam mu ko daan ànd ak ñun ndax waxtu wuñ masaana jug euh, buñ defee séddale ji bernde yi ba noppi ci sanc yi dañ daan dellusi ci moom mu ñaanal ñu waaye loolu waxtu nañu ci gis yokkute kon loolu waxtu wuñ toogee ba gisatuñ sëriñ bi day mel ne joxoñ boobu mu ñu mu ñu tegoon mënuñoo def lu dul wéy ca te loolu rek mooy mooy dox ba fii ñu toll nii nii euh, di loo xam ne euh, ndimbal moom dafa mënta ñàkk ndax bu ñu gisee asaka yi di tax suñu borom di ko digle ngir julli ñi di ko def ngir dimbalanti lañ jublu te amaana loolu bu ko ñëpp déggoon mën naa ne tumuraanke dana jeex ci julli ñi loolu nag euh, sëriñ bi daa mel loolu rek la xamoon moo tax mu santoon ma ngir wax ma ne ma naa ko def jox ma ci ndigal lu wér ma di ko ànd ak bokk taalibi yëpp nag ndax waxtu bis bu jotee ñëpp dañuy bàyyi seen yitte ñëw ñu ànd ko ci àndin woo xam ne àndin wu rafet la di ko defee na ko sëriñ bi bëggee ñu ngi ci ñaan nag ñu daje ci ngërëmal sëriñ bi bu baax a baax a baax di wax ne loolu daal ndigal la loo xam ne sëriñ bi jox nañu ko ñu di ko def di togg ay bernde di ko yóbbu sanc ñi nga xam ne jàpp nañ ne yittewoo nañ ko loolu dañ cee jëfee ndigalu sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké ab taalibe nag buñ ko joxee ndigal mu jëfe ko day bàyyee boppam sëriñ bi kon loolu mënu ma caa commenté ndax la tax mu def loonu ko mënuma ma xam waaye euh, def nañ ko ba noppi ànd ko bokk taal bi yëpp ñu ngi ciy yaakaar paye suñu borom ñu ngi wax sëriñ bi na ko ñu ngi ciy ñaan ndolleen ngir fa bëgg ñu egg fa ca loola suñu borom kàtt nañu bañ mën faa yegg jërëjëf euh, comme ni nga koy waxee te am na solo bu baax a baax waaye démb bi ñu seetloo euh, si dëkk yi doon dem wala si sancaan yi dégg nañ si benn kilifa ne dañoo seetlu ne boobu ak léegi wala it nag chaque année bu ñu xamee ne Serigne xalil day andi li nga xam ne mooy benn day sañcaan yi kenn du togg Mbacke ñu war laa laaj ak jamono gi fi mu toll maanaam dimbalante waaye rawatina joxe njam euh, tey euh, yéen ngeen la joxe ñam am. waaw euh, joxe ñam dafa nekk loo xam ne lu am dooleel ndax bu ñu gisee ci lislaam mën naa ne jaama goo xam ne lu mel ne buñ jëlee lu mel ne koor nit ki. bu ca do bu ca bu ko ca bu ca dogee euh, kafaara ji ci war euh, mboolem xeet yañ ci lim yëpp la ca gënal suñu borom mooy mu leel ay miskin te loolu euh, doy na sëkk ab tegtal ci ne joxe ñam lu kawele la suñu borom sunu jàmbaar ji nga xam ne moo di Cheikh Ibrahima Fall daan wax ne bis lañ koo laaj ne ko ku bëgg dab góor yàlla yi nooy def dafa waxoon ne dabe ndab képp koo xam ne da nga bëgg a dab góor yàlla yi da ngay sàkk ay ndab di ko joxe loolu it euh, foofu rek lañuy ñuy mën a sukkandiku di gis ne ñi nga xam ne ci yoon wi yoonu Sëñ Tuubaa da yoon woo xam ne yoonu jëf la euh, te jëf euh, du du du mooy borom nit ki lépp loo jëf jëfe ko fi jëf ko ci yoonu Cheikhul Khadim day nekk loo xamante ne bi njariñ dafa saase nga koy daal di gis kon ñam moom day nekk loo xam ne wala bernde day doon loo xam ne dañ ko doon ngir di ko def ndax boo xoolee. yoonu murit day mel ne li gën a rëy ci seeni mbir gën a gën gën gën a yéem nit ñi mooy seeni bernde ak seeni xeet teraanga te loolu ñu ngi ko doon Cheikhul Khadim loolu mooy dox ba nëgëni euh, ci sëriñ bi def loo gi ñu def loo woon loolu ci bis ba dañ ciy jox exemple bis bi nga xam ne moom lañ ko njëkk a def biñ ñëwee ca fam ñu waxoon ndax dafa ñu waxoon nañu bu ngeen demee bu leen taamu ko ngeen ko jox ku ngeen njëkk dajal tam yittewoo ko ngeen ko ko jox kon loolu wane na yàlla rek tax ñu demee fekk nañ fa ñoo xam ne seen yitte jéggi na day dayoo ndax wax nañ ne bu leen leeroon ne ñam dana bàyyikoo ci seen Cheikh ñëw ci ñoom euh, duñ sax di lebi dara ngir di bàyyi xel màggal gi ndax nee nañ màggal daan na ñëw ba jàll daawuñ berndewoo ci dara loo xam ne daan na bawoo ci màggal gi ngir seen ak néew doole ak seen ak néew kàttan ca loola doot na seen yéen réyoon na ci loola kon nag loolu day wane ne sëriñ bi xam na ne ndimbal lu war la kon nag loolu ñoo ngi ciy soññe ñëpp bu kenn ku nekk rek fa nga nekk ndax ndimbal jëru jëru seet fu gën a sori kenn ku ne fa nga nekk ci la la wër am na ñoo xamante ne bi xam nga ne ay néew dool lañ loolu dimbali leen day warteef ci yow bu yàlla dogalee ci fànn ko leen mën a tane loolu na dañ koy jaajëfal bu baax a baax si kàddu gi nga xam ne moom la wax waaye nag bu ñu waxee dëgg-dëgg euh, ngeen dégg kàddu yi ni mu koy waxee ne ndigal la goo xam ne dafa ñëwoon tey nag ka ko déggaloon du kenn ku dul sëñ Cheikh euh, moom mi nga xam ne liñ koy wax ne ko yàlla na ko yaara xaare aljanay euh, firdawsi tey nag ñu gis ne ndigal yam fa joxe woon ba tey naam nekkatu fi waaye ki nga xam ne mooy di sëriñ Khalil Mbacke moncax ba dem sax tey képp koo xam ne daan na ca dem gis na ñu yokkaat si yeneen béréb yoo xam ne nii euh, mësuñu fa woon dem Mbacke tey euh, si question boo xam ne day baaxee mbokki julit mbokki murit mooy ndigal ndigal dafa doon loo xam ne dafa am lay dëgg-dëgg si yoon bi tey lan la ñu mën a jàngatee si lool noon nga xam ne biñ la ko euh, joxe nga koy jëfe te la ko joxoon naam nekkatu fi waaye taxul ba tey moo ngi gën a wéy ñu gisi nag beneen yokkute boo xam ne bu ñëwoon daaw ay nag lañu rey tey mën nañ wax ne mën nañu wax ne rey nañu gëléem euh, lan la murit wala ab julit war a jàppee ci kàddu ndigal waaw xam nga ndigal moom day bari ñu koy wax te baat bi da leen di da leen di réer ndigal moom ñaari ci am mooy fa jóge ak ci kam jëm ndigal moom wërtu jóge ci ku ku war a jox ndigal ki war a joxe ndigal it waxtu ko joxe kam jëm ci ndigal la jëfe rek ko ci war te ñun suñu diggante sëriñ bi bi ñuy jaayanteeg moom dañ ko wax na ko aslamtu nafsi jëbal nañu suñu bopp àdduna ak àllaxa loonu digal ñu def loonu te ñu bàyyi jàpp naa ne kon bu ndigal jógee ci kër Sëñ Tuubaa bu wàccee ci ñun loolu jëfe rek mooy li ci war te sëñ Tuubaa ndigal loo xam ne joxe na ko day nekk ndigal loo xam ne day day toggoo coono ba bàyyil nag sag ba waxtu ko jëfee ndax da lay kàttanal dooleel la ba mel na dara nga ca te fekk ne doo ci dara day sabab ga rek la sas la ci des lépp moo koy tëñul boppam moo koy yóbbul boppam waaw kon nag ndigal moom mm, jëfe rek ndax loolu moom mën na si commenté dara waaw jëf jërëjëf dañ koy jaajëfal baax a baax waaye tey niñ koy waxee ne mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy sante yaakaaru jaam ñi di Seexina Ahmadou Bamba mbaake suñu yaakaar tey ak ëllëg mu doon 18 safar Mbacke naam tey 17 safar bi ni nga ko defee am na solo bu baax a baax waaye tey nga xam ne nit yi jóge nañ fépp ngir sant bis bu mag bi nga xam ne moom waxatuma Sénégal waaye àdduna euh, ñëpp xam nañ ne bu 18 safar jotee xel yëpp ci Touba la jëm tey ñu bëgg a xam lan moo waral màggal bi. waaw gi moom. sëriñ bi moo wax li ko waral wax tamit sabab yi wax tamit ni ñu ko war a jëfee ndax ku nekk xam na ne sëriñ bi ku yàggoon a bëgg ku yàggoon a sonn ngir lu baax bis dafa xëy ci Daaru Xudóos di def l'intikaaf gu kawe tëju ba gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko gisee mu ànd ak ahlu badrin sëriñ bi daal di xemmeem ngir bokk ci waa ahlu badrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñii de bokk ci ñoom faat na ndax dañoo jaar tuur deret te tuur deret de su ko santaane fii ñu toll ci yoon lislaam sëriñ bi na ko xawma lu koy maye de waaye lu mën a doon rek loolu mooy sama yitte biñ ci waxantee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko bariwaat na ko toll fi nga toll te yow ñetti weer nga nekk xut mën naa laa xëccal ñetti weer ngir nga nekk xut bu samaan sëriñ bi ne loolu neex na baax na waaye sama gis weesu na foofu daan na ko lu dul bokk ci mbooloo mi la wër rek bokk ci moom gënal yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko bari waan na ko toll fii ma feeñoo ko ni ma la feeñoo mujjul lu dul bëgg bokk ci mbooloo mi te buñ ko waxee lay tax mu bokk loolu du ko du ko yanu wala bokk bu ko yanoo sax bu demee ba ci biir da yàqule ngir loolu ci ay nattoog ci ay tartal ci la ko nit amee sëriñ bi na ko lu dul bokk ci rek bokk ci moom gënal ci tënk ba ñu foofu bokk na ci nattu yi nga xam ne moom la sëriñ bi yanu toll na ci 285 nattu yoo xam ne benn bu ci nekk mën naa jël bakkan bokk na ci natt yi ci jiitu dëkkam bii di Touba nga xam ne sëriñ bi dafa ñaanoon boromam ba mu aaral ko ko mu bind Matlabul Fawzayni ngir ñaan li nga xam ne moom la bëgg ci dëkkam bii di Touba te wax na ne bi mu koy def dafa jàkkarlook li mu bëgg na ko suñ borom di wàccee nee na li nga xam ne bëgg ko fi. dafa jàkkaarloo ni ko suñu borom di ko génnee ci biir Touba gannaaw suñu borom aaral ko ko dëkkam biir tubaa ñu ne ko nattuk balaa du fi wàcc sëriñ bi daal di laxasaayu génn Touba ngir dajeeg natt bi loolu ci taarix sëñ Touba moo ko njëkk a def yonent bi sallallahu alayhi wasallam li muy baax baax keroog bi ñu ko xatalee Màkka dafa demoon màddina ngir jàmm la fa wuti woon waaye sëriñ bi ku suñu borom xamal na ko aaral nañu dëkk bi di Touba. mu ne dinaa génn ngir dajeek aw ay ndax mënuma am lii ma bëgg lu dul ne damaa dem tukki tukkim boobu it suñ borom di ko natt yonent def sallallahu alayhi di ko natt boole ko tubaab bi ñu di ko natt waaye sëñ bi dafa wax ne tukki bi moom moo ko sabalu ndax boo demee ci asiru mi ngi ciy wax ne tubaab yi dañoo njort ne man seen prisonnier laa boo xam ne dañ maa jiital waaye man maa leen jàpp ngir ñu yóbbu ma ci biir assuré góor muy wax ne natt yi nga xam ne toggoo na ko mu ne xusóor yi xalaat wal lu an nii tafaraxat li matin lasi ma madiyu xasiru ne samay kër wéet na teqalikoo na ak samay ñooñ te nee na dara warulu ko lu tag gi ma tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu dem ci ci ak tiis dem ci ci jamono boo xamante ne jamono bu xat la ndax boobu mi ngi fi bàyyi njaboot goo xam ne eh, sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ak sëñ baara mu bàyyi leen fi laxasaa yu ngir liggéey boromam ci la dénkaane wax ne dénk leen yàlla dénk leen maam Thierno loolu it muy li yéeme ndax kenn ku ci nekk rek bu eggee fa masaana yegg dam doon ñaan ngir lu ko aar lu aar njabootam waaye sëriñ bi tukki bi daa doonoon lu mëntoon a ñàkk ci moom ñu teg ko ci ay natt yoo xamante ne natt yi mëne su ko lim waaye suñ boroom da koo da koo far ci njëkk ndax ahlu badrin gi doon ñaan ngir bokk ci keroog bi mu njëkk dajeeg tubaab yi ci jeewal nee na keroog la ko ahlu badri dikkal keroog la ko dikkal ndax boobu waxante nañ fi waxante goo xam ne sëriñ bi daa mujj neen leen damay fanaan te booba dañoo yàkkamtewoon ngir jël si ko ndax ordre yi ñu jotoon dañ ne sëñ bi lu manaam na ngeen ko indi ci muy dund wala ngeen indi ko ci mu def neneen bañ dajeek moom sëriñ bi dana leen sax lay fanaan euh, sëñ Moussa Ka koy nettali daan na jeewal mbóodi rëy na bu leen ko siwal la fa xew dafa bari bi sëriñ bi jógeet daa doon koo xam ne moo mujj di woma tubaab bi jaar ak ñoom dëkk yi mu bëgg a jaar yëpp ba est ñoom ndar ak la fa xew lépp bi ñu ko jëlee foofu ñu indi ko Dakar it la fa xew ñëpp dégg nañ ko ndax dugal nañ ko ci néeg boo xam ne sëriñ bi wax na ne su ko fàttalikoo nee na day bëgg a jël ay ngàndaayam ngir songiwaat tubaab bi ngir féetal jihaad waaye neen boobaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo may dalal moo may defal euh, te ci néeg boobu sëriñ bi nee na dafa yéeg ne temps bi mu def ngir es yàgg na nee waxambaane ñëw ci moom ne ko ab néeg la ab néeg nga ne boo xam ne neex naa dalloo neex naa noppali ko waaye sëriñ bi neena na keroog bi ñu ko dugal ci néeg bi dañ koo ba wax tànk bi mu njëkkee tege nee ràbb gi dafa sar ba jàll waaye nee na booba yàlla mi nga xam ne moo ko doon liggéeyloo nee na mi ngi mi ngi mi ngi diglu di yër xolub sëriñ bi ngir génn ux goo xam ne bu ci nekkee mu far mbooleem li mu tàmbale woon waaye sëriñ Tuubaa am ci dëgërlu goo xam ne daa daal di yëkkatiwaat tànkam gën a tegaat daab gën a sar nee na keroog bi ñu tëjee bunt bi nee na munta sujjóot munta sëgg nee na ngir ay tartar waaye nag téewu ko di jàmm di wéyal alxuraan ju mu doon jàng nee na keroog li ci gën a yéeme nee na rasulullah dikkal na ko fa nee na keroog gis na fi soxna jaara mu di ko ñaax di ko dolli ay mbir lool it sëriñ bi dañ na ko lu jiitu muy dem biñ ko yóbboo tamit ñu ko doon yóbbu waxuñ ci moom lu dul dañ ko yóbboon ngir sànq ko loolu waaye mën a wax daal sëriñ bi bi ñu koy génn dañ ko yóbbu ngir sànq ko yóbbuñ ko ngir dara épreuve bu ne def nañ ko ci diggante moom waaye yàlla di ko musal ndax yàlla daa far lu jiitu ndax ci jéewal la wax ne ci jéewal la wax ne ayasa minillah wa inda jéewali iblisa isnadaytu fo bi yaawali nee na yàlla suñ boroom ci boppam nee na mooma naaguloo ci iblis nee na bis bi nga xam ne woo naagu ci turam yi di yaawali kon ku yàlla naaguloo ci iblis kon euh, sëñ biir dara mëntu ko yàq euh, biñ ko yóbboo ci tukki bi mu jaar ay barab yu bari nee na xëy na bis buñ masaan a xëy dañ koy dañ koy jël si di def ci moom ay épreuve nee na bu ñu demee bu réussirul bu ñu xëyee ñu jëlaako yóbbu waaye nee am na bis boo xam ne nee na dañ ko dañ ko woo nee na takk ko ci garab lu mat fukki espèce ak ñett nee na seen commandant bi wax ne bu ma joxe ordre rek na ngeen dóorandoo waaye sëñ Tuubaa wax ne wahaba lil wahab fii sulaasa maa yuhjidul hasrata wa salaasa nee na yàlla moo musal ci pexe mi nga xam ne fukk espèce ak ñett defoon nañ ko jëm ci man koo xam ne luñ la defal yàlla musal la ca kooku yàlla daa far yow waaye yëmu fa nee na xëy na bis ci natt ya koor jot mu woor ba ngoon jot nee na amul doge te nee xalaatu fenn foo xam ne jàpp na ne war na faa mën a doge nee na bi ba ngoon jot mu xam ne dog war na ci moom day dem ba ci xobi garab mu rocc ko moo ci tem-tem mi nee na ba siwaat ak jàmm mu ne bi nga xam ne dem na di ko def di ko def ba bisu ko jot nee na mu wax yàlla suñ borom ne ko man kat war na maa génn murum koor te xam naa ne war na ma waaye bu ëmma ko te bu ma ko amal sax ëmma jullit bi ma ko jox suñ borom xamal ko ne ko loolu wàccu la ci la wax ne ko ndax bu ma tàggee rasulullah la alayhi wasallam ndax dana dana doy sëkk murum koor ci la suñu borom ne ko loolu moo ma gënal mu bind ay xasit tagg ci yonente bi sallallahu alayhi ci biir tukki boobu yëpp mu am ay natt yoo xam ne def nañ ko yoo xam mënee su ko lim xëy na bis ci Mayomba nee na ñeenti bant yi nga xam ne da ko sampoon ngir def ko barab boo xam ne barabu jaam jaamu nee na bis benn gendarme ñëw nee na ki leen jiite woon daal bant yi ne ko fii kat jaamu dafay xew sabbal yàlla ak yooyu xewu fi am ci taalibe koo xam ne dafa buuru woon ku fa nekkoon koo xam ne dafa buuru woon sëriñ bi daal koy téye daan na ko nanga nga muñ te dal daan na ko fi sempee sama bant yii ci li ma sama boroom xamal ne may na ma ñaari jumaa ci sama dëkk mooy jumaay Tuubaa ji ak jumaay Njaareem ci te loolu ñu ngi ko defee ci tukki ba natt yooyu yëpp mu daj ko ci loo xam ne la ko wax dafa leer dafa wax ne li waral ma tukki nee na yàlla suñu borom moo nam ma am ay daraja daan ne tey dama bëgg bu ëllëgee ma ràmm sama xet waaye dama bëgg bu ëllëgee tamit ma nekk xaadim rasul doon jëwrin yonante bi sallallahu alayhi wasallam doon am liggéeykatam nga xam ne dafa bëgg loo xam ne du jombe la loolu tax natt yooyu mën a mënu koo ñàkk dal ci biir tukki yooyu yépp ba yàlla xëy bis nag daal di jeexal natt wi sëriñ bi yéeg ne war naa dellusiwaat ndax tukki jeex na ndax bu ñu fàttali ko bi muy dem wax na bayit woo xam ne di wax na di wax suñu borom naan ko yàlla na nga def suma dellu si di doon ak texe ci xeet ma jëm kon kuy dem di xam ne da dellusi te bi ngay jug xamoo fañ lay yóbbu te ña lay yóbbu mu wóor na dañ lay sànki loolu kon am nga cër suñu borom bi nga xamante ne bi yàlla jeexal na am na tom mu dellu si bis toog na ci njaareem di nettali naan barab sàngam ak barab sàngam dañ naa fa nangam ak nangam mag ñi di nettali ba bi ba mu yàgg rek mel na mag muñ ko ba muntu koo muñ mu daal taxa wax ne na ko mbàkke lii metti na lii metti na daal di xaaju sëriñ bi da ko xëcc ba mu ñëw mu ne ko dalal daan na ko metti na yàlla na yàlla musal ci ma bañoon maa dal daan na ko ndax place bi mu occupé suñu borom ak maqaame ak tedd ngay mënuma ko woon am lu dul ne damaa tukki na ko sama tukki bi ci la ma yàlla defale lépp dar wax na ko bayit woo xam ne ne ko nabaxtukum maan ala kaddin bada lii xabla an ara redan mu abada ne ko maa ngi leen di yee ci ab coono boo xam ne dañ naa ko lu njëkk may am ngërëm lu sax daan na ko xëyuma xëy yàlla defal ma ay xewal ci am nattu ak i tartar ak i jafe-jafe ci laa liggéeyee ba yàlla defal ma lii mu ma defal bi ko suñ boroom waxee ne ko natt bi jeex na ba mu war a dellu si màggal gi de loo xam ne sëriñ bi moo ko wooteel boppam mooy bisub sant bi àdduna sosoo ba nëgëni kenn ku ci nekk rek bis bi ngay màggal mooy bis bi nga amee ndam waaye sëñ tubaa rek lañ gis muy màggal bis boo xam ne mooy bis bi muy laxasaayu ngir liggéeyal boromam moo tax lépp ci àddina da koo waroog nit ñi bis bi mu war a jóge ngir génn ngir dajeek noonu bis boobu lay sant la yàlla day sant yàlla di woote ngir mu santale ko ci suñu borom gannaaw bi tukki yi jeexee nag bi ñibbisee <coughs> dafa wax ne dafa woo sëñ bàll Fally Dieng daan ko bi may dem de di liggéey suñ boroom bis bi nga xam ne moom laa génnewoon di liggéey yàlla ci biir natt wi bis bu ci nekk at mi bu delsee suñ borom da doon ful natt wi waaye bis biñ ma xamalee ne natt bi jeex na kat ba baa saari taxaw na ko at mu ci nekk rek may yi ma yàlla may day dooleeku loolu it mm, àddina at na ko ndax mbiram sëñ Tuubaa day gën a jëm kaw day gën a dem ci la woo sëñ Balla Fally Dieng daat koy wax na ko képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bis bi bu ñëwetee nag ma sant la yàlla sama borom daat koy wax na ko li ko tàmbalee ci giléem ba ci ba ci ganaar lu ci man na ko def sant la ma ci yàlla suñ boroom daan na ko lott naa sant gi loolu Sëriñ Tuubaa moo ko njëkk a def moom rek moo woote bis boo xam ne ngir ñu santal la ko ci yàlla boroomu la te bis boobu rek la ma sa woote ndimbal ndimbal loo xam ne euh, tudd na ko ci làmmiñam ne dama lot ci sant gi may sant yàlla suñ boroom ci sant nag dafa ma a taxaw ndax suñu borom dafa wax ne la in shakartum la azidannakum daan ne ku sant ñu dool la waaye lam ci teg dafa wax ne képp ku weddi des na ne mbuugal mbuugal moo xam mu tar la kon nag sant bu ñu demee ba contre bi nekk weddi sant am na doole ci lislaam sëñ Tuubaa wax ne wasaa'ibul xinaahi in yakun shakur yafu ala sifaaxatin kaana saboor daan ki yàlla defal xewal mu di ko sant nee moo gën fuuf ki yàlla xañ ba noppi mu sàllu muñ kon sant lu am doole la ci yoon bis boobu nag day bisam mbégte di bis boo xam ne lu nu am ci lañ ko amee ndax jullit ñëpp la Sëñ Tuubaa libéré kon cant googu dafa war ñépp cant gi nag bu ñu ko waxee la ci jiitu sant moom bu ñu ko waxee mooy bis la boo xam ne màggal gi sëriñ bi bi mu ko wootee mag ñi dañ ko doon wax naan waat sëriñ bi moo leen woo ba ñëw mën leen tabaski dafa màgg dee leen ko wooye màggal gi kon sëriñ bi moo joxe tur woowu daan ne nag néewuma nag moo gën tabaski waaye yéen màggal a gën ci yéen kon loolu mel na ne wax ji firi na boppam kon nag màggal googu ku yàlla defal tawféex ba nga mën cee tàbbi cant rek moo daal di war te jëf ci sa kem kàttan ndax yoonu Sëñ Tuubaa da yoon woo xam ne yoonu jëf la du aw yoonu wax waaye yoonu jëf la te Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy bunt yoon lu mu am Sëñ jëf rek moo may kon loolu noo ci sonn suñu bopp di ci soññu mbokk yëpp di wax ne daal màggal gi lii mooy sabab bi mooy bis la bi nga xam ne Sëñ génnoon na ngir liggéeyal boroomam bi nga xam ne dem na ba nga xamante ne bi natt wi jeex na ci bis boobu ci la woote bis bi mu génnoon di liggéey nee nañ koy sant la yàlla suñ borom ndax nee na yàlla defal na ko ci bis bi mu génnoon di ko liggéey ay maqaama ak i daraja yoo xam ne mënu ko woon am lu dul ne dafa dem liggéey liggéey bu toll nii kon képp ku di jullit di taalibe war nga taxaw ci bis bi fu mu la mën a fekk ci àddina ngay def lay sa kem lay kàttan góorgóorlu ci xam ne yittee sëriñ bi la mm-hmm. waaw loolu daal mooy mooy kàddu yi koy eh, jaajëfal bu baax a baax eh, si kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati wax ñu tey lan mooy màggal waaye Mbàkke naam nag bu ñu waxee ne màggal nit yi niñ koy waxee ne waxatuñu Sénégal waaye si àdduna kenn ku ne moo ngi jógee fu ne di ñëw waaye nag am loo xam ne dafa am solo mooy màggal gi nan lañ ko war a defee naam tey ñu bëri ñoo ngi ñëw am ñoo xam ne engouement bi moo leen andi waaye am murit wala koo xam ne dafa jóg ne day àndandoog ñi nga xam ne mooy mbokki murit yi sant bis bi nga xam ne seexul xadim ne oh, doon ne bis yi nga xam ne gën na koo bëgg mooy màggal màggal nag bu ñu ko waxee mooy sant ab murit wala képp koo xam ne dafa ñëw si dëkk bu tedd bi ban taxawaay la nara war a am ngir àndandoog uh, murit yi nga xam ne ñoo fi ne wala képp koo xam ne moo di jullit ngir ñu màggal bis bu mag boobu waaw taxawaay yi mooy uh, ab jullit moom la ko suñu borom sant dafa leer mooy jaam yàlla te tegu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa nit ki bu ñu wootee màggal nekkul ne euh, nit ki day bàyyi la ko waroon ci la mu war a xëy di jàng alxuraan wala la mu war a xëy di ko def ay ibaadaat wala nangam déedéet yooyu yëpp da nga koy def ba noppi li la suñu borom sant nga di ko def waaye dolli ci nag euh, ni ko sëriñ bi wootee ginnaaw bernde la jiital ku ko man nga sàkk ci ay bernde ngir berndeel jullit ñi ak foo mën a nekk sëriñ bi egg na ci ba ne képp koo xam ne amoo loo berndeele nit nee na na nga seet foo xam ne dañ fay sàkk ay bernde nee na nga berndew ko bu baax te nga ànd ci ak pasteef kon màggal gi moom képp koo xam ne sàggan nga ci amoo ci ak payoor loolu loolu loolu loolu ak yaafus ak yaafus dëgg-dëgg la te it léegi li xew dafa bari ci folklore màggal waaye mooy li xew rek ci jullit gii am lool gii am ci ak julliti te loolu amutoon maanaam mbiram suñ borom di mbir yoonu murit daa doon loo xam mbiram jëf la te doomu bu nekk war naa sàkk jëf yoo xam ne danga koy wéetal sa diggante sa borom ndax loolu rek mooy li lay li lay jariñ ndax nit ku ne la lay jariñ mooy la ngay jëf kon bu fekkente ne amoo lu dul sëriñ bi mu woote lu tool nii bi mu ko wooteet moo leeralal boppam na mu bëgg ku ne màggale ci bernde kon loolu ku nekk rekk war na cee góorgóorlu kem kàttanam koo xam nag dem nga ba lot ca war ngaa góorgóorlu ba bu ñu la joxoon bernde sax nga xewlu ci bu baax a baax a baax te ànd ci pasif waaw kay euh, sant bu baax a baax nag ci bokk yëpp di sant mboolem jullit yi nga xam ne wuyu nañu woote bi nga xam ne sëñ woote na ko ndax màggal gi moom ku nekk xam na ne woote bi sëñ Tuubaa la comme ni ma ko waxoon ci njëlbéen ga di ñaan yàlla suñu boroom mi nga xam ne ak jëwriñ yi nga xam mooy yonent bi salallaahu alayhi wa di ñaan képp koo xamante ne bi teew nga fi wala nga am yéene teew fi suñ borom fas see aaju suñ borom def tawféex def tànki ñëw ak tànki dem suñ borom def ko muy aw yiwu def ko muy yërmande def ko muy tawféex ndax màggal gi kat sëñ Tuubaa ci boppam. moo moo wax nam ko bëggee kon nag képp koo xam ne wuyu ji nga woote bi sëñ Tuubaa dañ lay bàyyi sëñ Tuubaa waaw di sant bokki taalibe yëpp di sant tamit bokki dëkkandoo yëpp ak fuy waaye mën a jóge di sant waa ndakaaru waa Mbuur waa Thiès ñëpp yëpp di senegal fu di mën a jóge waaye di beral ak cant waa wi di ñaan suñ borom yàlla na leen doole yëkkati eh, di sant sëñ Daawda ak mboolem équipe technique bi nga àndal yëpp ak seen jëwriñ ji Papa Sadio di ñaan suñu boroom yokk ab liggéeyam te ful ko waaye di sant tamit Derby TV ci njiital ji li jémme ak mboolem équipe technique bi mu àndal yëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf euh, sëñ Xalil Mbacke euh, dañ koy jaajëfal bu baax a baax si kaddu yi nga xam ne moom la yëkkati naam dégg ngeen kaddu yi mooy 17 euh, safar gi nga xam ne moom la sëñ Cheikh Darou Rahman santoon ko boobu léegi mu nekk si di si wéy waaye rawatina li nga xam ne moo sabab bis bi nga xam ne tey moom la ñuy sant muy bis bi nga xam ne moom la ñuy yaakaaru jaam yi di Cheikhul Khadim di ko jaajëfal bu baax a baax mën nañ wax ne 18 safar day xat loolu kilifa yi du ñu am jot lool waaye dañ koy jaajëfal cofeel gu baax a baax ginnaaw gi nga xam ne may nañu jot ndaxte taaliba yi dañu ñëw di ziyaare mu may ñu ko ngir dénk taaliba yi eh, kaddu yooyu dañ koy jaajëfal baax a baax jaajëfal technicien yi nekkoon si ginnaaw ñi nga xam ne mooy eh, papa papa Doudou Djili waaye nag niñ koy waxee ni si OTV lay amee ak Derby TV eh, di leen jaajëfal baax a baax te ngeen resté connecté wu di xaar yeneen nag maanaam lépp loo xam ne dafa jógee si bis bi nga xam ne moom la ñuy sante Seexul Xadim di ngeen ko am si ñaari seen yooyu da leen di jaajëfal baax a baax li wax mooy leen yoon bi nga xam ne Seexul Xadim uh, moom la nekkoon ba tey ñun ñu nekk si niñ koy waxee ne amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am te it nag dégg ngeen kàddu yi nga xam ne sëñ Xalil moom la wax uh, ku si def sa dërëm uh, balaa déwén nga gis ko nag niñ koy waxee ne ku dul sant nit doo sant yàlla waaye ñun dañuy sant yaakaaru jaam mi nga xam ne moo di Seexina Ahmadou Bamba dañ leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a toogoon dañu seetaan Daaru Rahman la woon Daawdu Jigal moo nekkoon si kàddu gi dañ leen jaajëfal baax a baax